am ak yéen jotaay ci waxtaan ci tolluwaay réew mi ak ci xew-xew réew mi di leen gërëmati tey ñi ngi waxtaan ak yéen ànd ceeg mbégte gu rëy ndax ñu ngi sant yàlla am nañu tan bu baax a baax a baax suñu wér-gu-yaram am nañu péex gu rëy rëy ñu ciy gërëm ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur ak seen taxawaay di leen ci gërëm yéen ñëpp ci seeni ñaan ak seen yitte yooyu lépp yàlla boole moo ñu may tey ñu mën a togg ak yéen euh, ci peex ak tal pour waxtaan ak yéen waxtaan gi nag ñoo ngi ko waroon waxtaanee jëmale rek ci woote ci taxawaay gi nit ñi war a am ci li ñuy dëgmal muy ëllëg gannaaw ëllëg ak bu soobee yàlla le 3 avril ci li ñu woote nañu manifester fépp ci Sénégal ba Macky Sall xam ni sénégalais yi ànduñu ak moom manifester gi nag. ñépp ci war a ànd manifester bu ñu jàpp ni manifester yi affaire u ndaw ñi kese la wala affaire u kese la déedéet li Macky Sall bëgg bu ko amee kenn ku ne fi nga toog di nga toog matt sa baaraam bu cax la xeex ñun ñëpp ba ànd ba yegg si fii ba Sénégalais yëpp am yaakaar ni lañ doon xaar boobu ba léegi fukki weer ak benn gën saa gudd moo ci des pour ñu mun cee commencé koo liggéey ba ñëpp gis àdduna yëpp gis ni Sénégal ay ndawam la keneen mën ak la ñeneen mën mën nañ ko loolu la Macky Sall bëgg a fànq tey moo tax bu kenn jàpp ni mbirum usmaan Sonko la mbirum diw la wala diw Ousmane Sonko xaarewul dara ci politique saleer sax bëgguma ko ci politique yàlla mi ñu tiim ak weeru koor gi yéene gu ñu am ci réew mi rek bëgg liggéeyal réew mi jaamu ci yàlla ba waa réew yëpp gis ni lañuy seenu feneen wala la ñuy uti feneen ndeket yomboon nañu suñu biir réew loolu la Macky Sall ak li mu àndal benn benn yi mu àndal bëgg koo jaarale ci justice moom lañ ne tey dañ ko bëgg a fànq ndax dinañ ko nangu moo tax yow taximaan bi yow baykat bi yow étudiant bi yow menuisier métallique bi yow ouvrier bi yow yow yow kii yow mii di jigéen gi ñëpp laa boole woo ñu bañ a sàggan ba Macky Sall noggatu ak nappaate gi mu nekkee foog ni mun na tiital Sénégalais yi ba kenn dootul ñeme yëngu loolu bu mu mucc bu mu am mujj li ko mën a dindi nag mooy askan wi bis bu xamee dooleem xam mën-mënam xam ni xajul ci kenn xajul ci Macky Sall xajul ci polisam xajul ci gendarmerie gis ngeen tubaab yi la ñoom amuñu ko tey ab français bu toogoon liggéeyul sax am na lu muy fayaku weer wu ne loo xam ne mun na ko permettre au moins mu fay location ak dund te tey ñoom ñi ngi génn di xeex suba ba ngoon jot ñuy xeex xeex yu metti parce que rek dafa am réforme bu ndaw bu ñu bëgg jàllale pour ne léegi dootuñu retraité 62 ans waaye 64 ans la lañuy retraité waaye xanaa ñooñu dañoo war a gën a bëgg seen bopp bu ñu toogee dégg ay nit di essayer dugg ci xelu ndaw ñi naan leen ku fi dee yaa perte ak nangam nangam dama naan xeetu njaam googu moo taxoon tubaab gi noot suñuy maam xeetu wax jooju mooy nangu tënk sa bopp ci jaam moo taxoon tubaab bi noot suñuy maam génération bi ñu toll nag weesu na loolu dañoo xam ni réew mi rek lañu am amuñu feneen amuñu beneen nationalité bëgguñu ko sax réew mi nag doomu réew mee koy defar te bokk na ci li koy defar ci doomu réew mi projet bii ñu leen andil joxuñu leen xaalis sexaluñu leen lem menacé wuñu leen mais di leen woon benn benn ngeen di gis ba tey ñu am yaakaar ne ñu nga ca cappaandaw ba Macky Sall ak ay juge ak ay procureur ne ñoom ñooy taxaw ne tey loolu du am ci senegal buñ ko nangoo rek ñun ñoo nangu ñu tënkuñu ci njaam moo tax nag ñu ne na génn suba le 29 gannaaw suba le 30 ak le 3 avril bu ñu kenn essayé boole kenn ndax da ngay dégg ñu naan waaw ñoom respecté wuñu république bi ndax date bi kenn waru cee manifester Macky Sall dafa respecté république Macky Sall suy tëjaatee daf ci xool luy trois avril ak luy avril suy dóoraat ak suy dóor nit ñi ay bal daf ciy xool ban bés sañu nekk dama ne. ku mën a xeex na xeex ku mënul xeex na maadu ci li ñuy xeex waaye kenn duñu tënk ci yooyu ñenn ñi dañ naan waaw 4 avril feetu armée bi la kon weeru ko ñun 4 avril kenn tuddul 4 avril 4 avril suñu 4 avril ñun ñëpp la te armée bi kenn ëpp ëppalewuñ ci kenn gënuñoo fonk armée bi ñun dañoo xam lan mooy arme waaye li ñuy xeex bokkut ak loolu te gëm naa ni li ëpp ci armée bi ànd nañu ak ñun ci li ñuy xeex dama gëmuma ko sax dama dama cee am yaqin moo tax bu leen kenn dugal ci débat yu amul solo bu ñu deltoo gannaaw rek mooy may nañu Macky Sall fu mu jaare ba faw te kenn dootul noyyi ci biir senegal kenn dootul am afia looloo tax nag ma ne waxu procureur sax taxu mu woon a jóg waaye procureur dafa wax loo xam ne ay wax yu teguwul ci dëgg la may wax sénégalais yi nag procureur bi doon wax tey muy baaxum ku ma xam la ma xam ko daanaka sama mag la ndax yàlla dafa def rakkam bu mu bokkal ndey ak bàyyi doon sama xaritu benn bakkan lenke ñu ànd jàngandoo première année ba quatrième année université bu ñu jógewaan université ñëw vacances Thiès këram cité la bi dama fa daan dem toog rakk ji da ñëw seet si ma ñu dem ba mu doon affaire famille day day ñëw fii sama kër daan na fi ñëw daan naa ñëw këram fii à côté procureur Bakhoum bi waaye juram bu jigéen feebaree ñu entré ko fii Ndakaaru sama jabar moo doon togg añ chaque jour ñu yóbbul ko suñu yaaja ba keroog ni ko yàlla moome kon kooku xamantewuma ko su ma waxee nag waxuma ko pour yoole waaye li tax ma wax ko mooy won Sénégalais yi Macky Sall ni mu bonee ci justice su Sénégal ni mu munee jël nit wàcce ko ba ci suufa suufa suuf imma dafa am ay dossiers yu mu téye ci yow doog la fal fi mu la fal nome la fi mu la nome ne li ma bëgg ngay def wala mu am lu mu la dig ci xaalis wala ci alal nga topp li muy def foofu la justice bi toll tout justice bi yëpp nag waaye ñëpp xam nañ ni magistrat yi bañ yëpp tey sonn nañ ci justice bi gis ngeen mouvement bi passé ñi doon bañ ñëpp jël nañ leen sànni leen fu sori jël seeni nit teg leen ne leen li ma bëgg ci Ousmane Sonko nga may defal mooy warul nekk candidat en 2024 baaxum bii bu toogee tey di wax mel ni ku ma xamul di essayer gëmloo Sénégalais yi ni man Ousmane Sonko terroriste la dama naan àdduna lu doy waar la waaye noonu la ma ki sal mel ak justice ñi fi jox cër yépp ndomb tànk bu tax ñuy wax ci justice bi ku xam seen jaar-jaar ci wàllum magistrature di nga xam ni foofu du woon seen place dossiers yi ñu am yépp ci biir magistrature ñëpp xam nañ ko baaxum xamante nañ bu baax ànd nañu ñaani jabar toog nañu naan ataay def nañu lépp moo tax moom li mu wax xam na ni du dëgg moom li mu wax bu ñu daje woon léegi li mu may njëkk ko mais sama rak comprendre ma rek li mu wax ci boppam xam na ni du dëgg xam naa ni ay mbokkam yi ma séqal man buñ ko déggee tey am nañ lu leen métti te àdduna dara jarul yenn yi waaye ma dellusi ci li mu wax baaxum dafa wax ni benn man ba léegi ñemewul wax waxul waxul sama wax de man ci li ma wax nii dañ ma doon essayer faagaagal wax na ci El li mu bind wax na ci presse li mu bind waaye ñooñu ñëpp balaa ñuy wax man maa njëkk a wax man maa ni dañ ma doon essayer faagaagal dañ doon essayer faat sama bakkan te ñi ko def waa police la xam nga man li may wax dama koo ñeme man raayantuwuma làqatuwuma li may wax dama koo ñeme ndax koo jàkkaarloog mu taxaw yor li mu yor pompe la ko nga gis ko nii ci biir bët man kooku kenn duma ko nettali maître Ciré Clédor Ly gis na ko giimari Marius gis na ko kon naka lañu mën a ne man ma génn ne dañ ma doon es dañ doon essayer faat sama bakkan te ñi ko def waa la waaye man porté ma plainte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 lii du magistrature lii du justice lii banditis banditisme judiciaire la moo tax nag duñ leen bàyyi ci loolu docteur Niang mi ñu jàpp di ko pamti pamti may wax sénégalais yi man docteur Niang mosuma koo gis benn yoon laa mës wax ak moom ci téléphone site kër góor gi laa dëkk clinique jege na ma keroog bi may jóge fële xaw naa sonn bi ma egsee fii man leen nag yóbbu leen ma ci clinique ba mais wool leen ma samay médecin ñu ñëw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 ana seen enquête yéen daal leen neex ngeen ngeen di def foog ni dañ leen di bàyyi noonu rek balaa may dee nag ngeen ne dafa am commando bu leen doon rëbb bu leen doon pexeel bëgg a dal seen kaw ñun de yéene leen ko ndax ñun ñëpp jàmm lañ yéene yéenay fitna di dal suñu kaw rek waaye yéene leen ko waaye nag jàmm dañ koy mayante nu ngeen doon doon doon ay magistrat ay nit dong ngeen dong lu ngeen def ci keneen mu métti ci moom bu ñu leen ko defee mu métti ci yéen dama ne doomu jàmbur yi ngeen di jàpp tegu leen ko fenn dul bëgg lu neex Macky Sall di leen tëj ci kaso yi di leen takkal ay bracelet électronique abi yi ngeen di def chaque jour foog ngeen ni loolu mun ngeen ci dëkk ba pare mucc ci mënul ne dossiers yi ñu leen di monteloo fu askan wi amee yaakaar ci projet politique ak projet de société ñu jël ñetti magistrat ñeenti magistrat ne leen yéen yéenay dakkal loolu foog ngeen loolu mën ngeen ci dëkk ba pare mucc ci vous mettre contre la volonté d'un peuple tout ci pour plaire à Macky Sall ba pare jàpp ni loolu mun ngeen ci mucc ñi leen di nax ne leen mën nañ leen assurer protection dañ leen di nax rek de ndax xeex bii peuple bi di xeex du xeexu benn fan du xeexu benn weer te ñu ak yéen ñoo nekk fi biir Sénégal menacé wu ma kenn nag waaye dama di dama leen di dànkaafu ngeen xam ni tooñ baaxul loraange baaxul dañ leen a ce peuple moo leen di fay pour ngeen atte te ngeen ragal ci yàlla xool ci peuple boobu su ngeen solee nag seen malaanu politicien dem toog di jaamuma ci Sall di ko defal li mu bëgg dina am fu muy toll bis bu réew mi yëngoo li di dina dal seen kaw yéen it te Sénégal yi sonn nañu te fitna yi fiy juddu yëpp depuis les années quatre-vingt-dix ba léegi fitna yi fiy juddu yëpp ci wàllu politique loxo magistrat mi ngi ci gannaaw ci décision boo xam ne ki koy jël leer na ko bi mu bi mu koy jël ni décision bi waru koo jël mu jël ko dem toog jàpp njàmburam foog ni nit ñi mun nañoo continuer muñ loolu procureur comme politicien la ni Macky Sall di politiquer mooy bi ñu commencé ba léegi ñu ngi xool lu ñuy def ba jaxase Pastef ak kilifa diine yi waaye gis nañ ni lajj nañu lajj bu doy waar ndax tey foo dem ci foyer religieux yi bu pa bu élection jotee man coalition bi ñuy bokk moo koy gañe li ci feeñ ci élection législative bi weesu wane na ko du Touba du Tivaouane du kaw la du feneen ak feneen waaye comme politicien la dañ koy waxloo ñu ne ko demal ne dafa am ay xale yu doon waaj a def ay attentat pour dal ci kaw ay kilifa diine mën naa giñ ci weeru koor gi ñu nekk nii ni procureur waxul dëgg moom ci boppam xamul ñëw am na ne waxul dëgg moo tax ñii dañoo dangereux ci réew mi ndax nee naa leen Macky Sall li li gën a sensible ci ay nit lay fooye mooy bëgg a jaxase nit ñi ci wàllum diine wàllum waaso wàllum xeet wàllum région mooy li gën a danger te loolu dara waral ko lu dul bugg a toog ci nguur rek may feddali sénégalais ni procureur baaxul ak ni ma ko xamee moom xam na ni moo tax xale yi gis naa bi muy wax ñuy ñuy commenté naan ko yow bu yóbbu mun ngaa dem naan ndox ndax woro moom ci boppam diggante ak boroom xam na ni waxul dëgg te kilifa yi muy essayé manipuler kilifa diine yooyu xam nañ ni moom waxul dëgg Sénégal yi koy déglu yëpp xam nañ ni waxul dëgg àdduna bi yëpp xam na ni waxul dëgg waa lii lan moo ko jar ci àdduna moo tax ñu dellu di woo sénégalais yëpp nag suñu plan d'action bi ñu tëraloon waxoon nañ leen ni fi mu toll nii tembe autorisation ñàkk autorisation suñu nee dañuy marche dinañu marche déposé nañ ci territoire bi yëpp am na dégg naa fu ñu nangu am na fu ñu bañ rawatina ndakaaru gi mooy wax waa ndakaaru ni ka dinañu mar manifester bu soobee yàlla le 3 dinañ manifester le 29 muy suba dinañ manifester le 30 muy gannaaw ëllëg dinañ manifester le 3 incha allah kenn mënuñoo boole kenn wax naa leen ko léegi la ñuy manifester xeex suñuy droit ak suñuy àq. Macky Sall li ko tere nelaw fi mu ne nii mooy défilé 4 avril bëgg na ñëpp ne cel ba moom mun a def défilé bu rëy rëy rëy te lim ci jublu mooy gën a nappaat sénégalais won leen ni jënd naa ay ngannaay yu bëree bëri bëri ay char de combat ay mété ay lëli ay lëli défilé ba kenn ëppale si ndax fête de la nation ñun ci nation bi lañu bokk waaye calendrier Macky Sall du yóbbu suñu calendrier. man mii dañ maa convoqué gannaaw suba ci tribunal calendrier bi changé wuñu ko pourquoi ñun ñuy changé suñu calendrier ci leneen ak leneen moo tax ma ne nit ñi bu ñu sàggan ba Macky Sall am li mu bëgg na ñëpp génn massivement na affaire yi gën a tar dañu ne manifestation pacifique jàmm lañu ñu woote am nañu droit génn dox parce que constitution bi moo ko bind bu ko Macky Sall buggee tere nit ñi nag lépp lu am ci loo xam ne dina andi xëccoo dina indi pëccëxoo Macky Sall ak polisam ak gendarmerie ñoo koy andi lii muy def ni nag foog ni mën na fees bëtu nit ñi may dalal si xelu sénégalais yi Macky Sall prison mii mënul arrêté sax 2000 sénégalais yóbbu leen prison fi ne nii prison yi fees na lii mu jël jamono ji naan ay bracelet électronique di ko testé ci waa Pastef yi te li ciy jublu waayam tam mooy fexe ba wane ni isolé na Pastef may wax ni mënoo fexe ba isolé Pastef ndax Pastef dafa ànd ak Sénégalais yi d'abord dafa ànd ak askanu Sénégal askanu Sénégal moo porté Pastef ci ci boppam waaye Pastef dafa ànd ak opposition bi ñu ànd di xeex li ñuy xeex def benn say moo tax mënoo muusa ki waane ba isolé Pastef bëgg a gëmloo ni Pastef mooy parti bu violent mooy parti bu fippu déedéet dafa fekk Pastef nga singali moo tax Pastef taxaw jàkkaarloog yow waaye opposition bi yépp ñoo ànd tey fas yéene jeexal nguuru makisal kon lii lañu bëggoon a waxtaan ak yéen ci lu gàtt di wax tamit ni ndaw ñi bu affaire bi dem ba yóbbu leen ba ngeen fàtte dem bindu ji ci list électorale yi na ñëpp dem bindu ci liste électorale yi na ñëpp dem bindu ci liste électorale yi parce que loolu moo leen di jox ngànnaay gi ngeen di xeexee ba su élection ba ñu mun fa jëlee Macky Sall wala candidat am ba fiy toog ndax moom amul droit nekk candidat ñu duma ko dès le premier tour ñu abal ñu may réew mi jàmm ak afiya ñu defar réew mi may daaneel nag ci dalal xelu ñëpp damay gis léeg-léeg ñu bind ñu naan euh, euh, sonk dañ ko euh, ñi ko wër ñëpp dañ leen a isole sonk wéet na Pastef la ñu bëgg a sonk Pastef kenn mënul ko dara gannaaw yàlla Pastef kenn mënul ko dara gannaaw ma ay at a ngi ni Macky a ngi jéem du tey jii nga xam ne fukki weer moo des ci mandaam la Macky Sall di mënal Pastef lu mu ko mënul woon démb fileeg Ousmane sonk ngi dund yor bakkan bu soobee yàlla nañu xam ni Pastef kenn mënulu ko dara kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax ñu gën a yokk taxawaay bi gën a yokk ndigal laay bi parce que nag xeex bi dañ koy gañe de te gañe nañ ko ba noppi wasalaam.